di fay ñu gis ni jamono ji euh, Fosande Mbacké mu toj ci waxum dem géej ñi naan Barça Barsak yow nga nekk fii doon papa. Mm. di gis aussi ay nit ñi nga xamante ni wala yaa ngi leen di dégg ñi dañoo làqu ci li nga xamante ni moom mooy ci gaal yeeg yooyu yow mi nga xam ne yaa ngi ñangal ñu gis aussi beneen mbir boo xamante ni wute na ak ñeneen ñi nekk biir yéen ci dem bi géej yeeg yooyu lan mooy secret waa ñangal ba bokkuñu ci ñuy dem. waaw bu dee loolu sax man dinaa ci sawar a wax parce que sama naataango bi ma fi nekkoon sama grand bi. Mhm. mën naa wax ne wax na lépp. Mhm. parce que dafa am loo xamante ne dafa xew ci àdduna bi yëpp. loolu nag dafa tiital àddina bi yëpp. muy wàllu maanaam mbas mi. mbas mi bi mu amee ñun waa Njangal ñun suñu bopp ñun ñoo jëkk am problème suñu problème ci Njangal fii xam nga mooy lan boobu dañu euh, dañu seet ay licence ne mhm. licence yi ñoo ko jënd à un million cent moom lañ ko jëndee yàlla mi dara teewul mbas mi ñëw ñu jëloo loolu lépp tekk si suuf plus de 70 gaal plus de 70 gaal ñu ngi fii yoo xamante ne jëloon nañu licence mais bi mbas mi amee dañ ko arrêté teg ko noonu ñu nekk ak moom di rouler moom di rouler moom di rouler moom ba 8 mois gaal yaa ngi door a démarré ci mois bii la ñuy door a démarré pour démarré Guinée si loo xamante ne da nga ko yeb da nga ko leb banque ci gëm-gëm yi xamante ne moom la suñu waa zone bi nekk muy waa Jalaw gépp jalaaw gépp ñu am ngëm-ngëm te ay liggéeykat lañu te dëkk bi dañu nekk dëkk boo xamante ne ñun ñëpp benn lañu ay mbokk lañu lu waay laal lu laal sa morom rek laal na ca la ca des yàlla mi dara teewul nag ah a ah, xale yi dey waajoon nañu dem nañ mbëkk ma mais bu ñu demee mbëkk ma du kenn koo xamante ne sa waajur yëg na la du kenn koo xamante ne sa waajur yëg na dañ jékkee-jékkee-jékkee bay envoyé ay foto ak ay kii ñu ne ah doomi diw day si nangam ak nangam ak nangam la bokka loolu nag nekk loo xamante ne lu metti la lu metti la euh, ñun waa Jalaaw surtout ma ñun Sénégal gi xamante ne si lañ dëkk ah ñu ndey waa jangal gi dëkk gi man jangal laa dëkk mais am nañu problème am nañu problème bu rëy problème problème bi ñu am mooy ci wàllu port parce que bateau waaye yéen ñi xamante ne ñoo gaañu si mbë mbëkk mii ñuy wax nii dañuy ser seen mbaal ci géej bu buñ ko sere bu ñu xëyee di sedd ay mbaal du ñu gis ay mbaal ba tey ñoo koy mbaal muy bati chinois yi ñoo mbaal problème boobu nag am na ci yéen am fa am fa yéen chaque deux jours ñu ñëw fi di laajte ndax gaal yi gisu ay mbaal ak yéen ñoo ne non gisuñu ay mbaal yàlla mii dara teewul nag ah am lu fi jaaroon muy xéewal xéewal gu fi jaaroo muy woyam bi si lañ daan nappe di si def di si am suñuy teraanga ñu ñëpp ku si nekk di si def li ngay def mais ah doy na waat lan nga gis ni papa bu ko nit ñi defoon autorité yi surtout yu nekk fii dina tax xale yi ñu bañ di demati ci mbëkk mi. ah nit ki ku si nekk yaay mën a sàmmal sa bopp. nit ki yaay mën a sàmmal sa bopp parce que autorité yi amuñu ñu lu dul wax mais du kenn koo xamante ne da si ñëw taxaw na la am dépasse bi maa la koy jox. nit ki yaay liggéeyal sa bopp ñefeel sa bopp amal sa bopp mais am na loo xamante ne nit ki warloo ci dugg parce que boo si duggee dangay ngay xaru man mii di wax ak yow nii dem naa Mauritanie campagne dem naa Mauritanie campagne mais bi ma demee Mauri Mauritanie campagne dem naa Espagne deux fois benn maa ngi jaar avion benn maa ngi jaar ci bateau yi ñaari yoon yoo xamante ne damay njoggi di dem mais li ma gis ci yoon bi mhm. bateau buy dem di dóor ñun ci ma kii bi la ñuy toog di añ mais bu ñuy añ dañuy daale derrière toog foofu di añee foofu la ñuy añee mais bato buy daw di dóor na ding ding parce que nit ki bu fekkente ne day daw ay 100 lay daw. Mhm. boo calculer comme ni oto di daw dañ na daw ndànk dal ndànk. Mhm. mais bu fekkente ne da ngay daw bu baax vague bu mag jog bu vague bu mag jógee bu dalee gaal gi mën na xotteeku mi ngi mel ni ki ngay entraînement rek sol tubé ju seere booy ay mouvement bu si yàgg danaa tiir toj. Mhm. waaw nit ki nag yow yaay maytu mais loolu yi ñuy def noonu. di dem Espagne ay risque la mhm. te risque boobu ñuy def noonu mhm. sànq sa bekken la mhm. sànq sa sa sa sa sutur sa sa sa sa njaboot ak say waa kër sax mu ngi noonu la mu ngi noonu la parce que nit ki nag yow yaay sàmm sa bopp ah ñun day wax dëgg yàlla njangal gi day du kenn dégguma fi kenn koo xamante ne dem na mbëkkam amul dégguma ko mais ñi fi nekk ni plus de 200 gaal gi fi gis nga lii fi des si gaal ni matul 100 gaal te matul 80 gaal gaal yi fi nekk ni nag dem nañu ba ñëw man nag maa ngi ak sama gaal dem na géej mhm. waaw mais bu ma neexoon ma dem mbëkk mi mais samay rakk du kenn koo xamante ne booy kon na si mbëkk ma dana la ëy wóorul mhm. mais booy yi dem mbëkk ma ah xam naa yàlla ko tudde noonu yàlla moo ko tudde noonu mais zone bii day fii day déggangu ma ko nag mhm. waaw mais risque bi ñuy jël nag pour dem mbëkk ma nag dafa ëpp parce que Mauritanie du déew déew mooy du calme Mauritanie tout le temps mi ngi ngelaw day ngelaw tout le temps amul fenn fu muy taw Mauritanie boo ko jàllee rek jàll nga mais boo ko jàllawul nag échec. échec nga mhm. comme ni nga ko waxee yéen bokkoo leen ci ñuy dem mbënd ma euh, di dem ci ci bar comme ni nga ko waxee barsaak barsaak mhm. kon ana ci lan ngeen di sukkandiku parce que it bu fekkee ni doo leen dem seeni doom du ñu dem lan mooy secret bi tax ngeen toog yéen fii fii am na secret. fii mhm. bu ñu demee géej ba teer hmm? bu ñu demee géej ñi ba teer. bu fekkente ne gaal gi dafa indi jën yoo xamante ne dafa nëb sama jabar lañ koy jox kooku moo koy géejee def ko noonu kii ko gis nga fi ma toog nii ñu toog nii mhm. si mbaalu jën la ñu nekk nii mbaal mii des na tuuti fii mhm. fi la ñu koy mbaale di si am chaque jour mille francs mbaal bi mbaal bi ñu toog nii mhm. chaque jour mille francs moom lañ cey di ko depuis un mois mais mbaal tamit da si amaale lépp lu ñuy def si mbaal mi lañ koy def ay nag yi tom ari tag koori teeg yooyu yëpp si moo koy liggéey li ngay gis nii mhm. waaw mais dëkk bi wax dëgg yàlla moom yàlla def na fi jàmm mhm. dëkk bi sutura la mhm. parce que dëkk boo xamante ne mag ñi ñoo fi ñaan ah am na tiijaan am na murit waaye benn benn am na xaajir benn benn am na tamit laayeen benn benn waaw mu ngi noonu dëkk bi daal mu ngi noonu dëkku jàmm papa ana lan ngay tàggoo ci kàddu ah ku ma déggalee doo dem mbëkk ma ku ma déggal ku mu doon doo dem mbëkk ma te li may gën a samay kàddu yu mujje mooy état bi bu fekkente ne mën na ñu dimbali si gaalu euh, chinois yi bateau chinois yi mhm. bu fekkente ne mën na ñu si dimbali mu dimbali si dimbali ñu si mba ñu wàññi gaalu chinois yi waxuma ne duñ ñu jox licence mais nañu ñëw wàññi parce que ñun am na bés boo xamante ne man dama dem géej ñuy napp bi ñuy napp di nappa di nappa di nappa ba si yàgg ma booy na ma papa gaal googu si ñun la teg de. Mhm. ma ne ko ah mu ne waaw feu bu rouge bi ak bu bu verte bi boo ko gisee rek ñaar yooyu si yow la teg ñu xool xool woon ma ne léegi ay mu jóg dañu déplacé rek gaal gi jaar foofu léegi bu ñu fa toogoon du ñu rey. te gaalu chinois la te bu ñu la rey tomate polo kulo lañ lay wax joge fi parce que yow moom parce que ñun dañu am matricule gaal yi dañu am gaal goo fi rek am na matricule ñun dañuy fay si état comme dañuy fay si état ñoom dañuy fay si état. Mm-hmm. ñoom ñu jël ay employé parce que man sama famille rek nekkul si gaal gi. dafa am ñoo xamante ñu ngi si gaal tamit ñooy tamit bu ñu ñëwee bu tamit si la ñuy amee. ku si nekk si loolu ngay suturloo. Mhm. mais ba ñu mënee dimbali rek te yàlla tax ñu wàññil ñu gaal si chinois yi. Mhm. ñu wàññi bu ñu fi bàyyi rouge yi kii yi sax yi xamante ne pêche du jour baax na. Mhm. waaw loolu daal mooy tàggoo bi yàlla nañ yàlla defal jàmm mbëkk mi yàlla nañ si yàlla